haa xalaan bikum xana lan moo tax njiiti réew mi Macky Sall ba léegi waxul kan la tànn ngir candidat Benno Bokk Yaakaar Oumar Sow ne man Amadou Ba laa tànn ngir mu nekk suñ candidat lu ma ci góobee gar ko ma ngi ko waxee ci info yéen kaay xaar bi fa yàgg ba taxawal fa jëri yéen kaay fa xëy samp laaj bi l'observateur na ko faalay tontu affaire bi yombut fi mu toll nii fa compliqué ci njiiti réew Macky Sall yaw fa ngay xool moom fa bëggoon fi mu toll nii fa xam ay nekk bëgg ñu jiital ko yéex a tànn bi njiit réew mi a tànn nag arrangé baaxut ci ki nar a nekk candidat benn bokk yaakaar ndax su ko defee du am temps ngir mën a waajal boppam wal fajir yéen a kaay na ko voilà loolu la njiit bëgg nag ci ñi nga xam ne fa ñoo nar a bàyyi xaw seen yoonu bopp su yéexee tànn duñu am temps ngir ber aw seen yoonu bopp dem uti parrainage source a yéen a kaay ne faa di wax leen na njiit réew <laughs> ne fi mu toll leer na nañ Khalifa Sall ak Karim Wade mën nañoo bokk ci wote yi 2024 ndax loi ba promulgué nañ ko ay fay quittance ak ay yi nangam jeex na intaha c'est fini léegi fa ñuy bokk indépendant yi ne kaay moo ñu ko xamal maître Moussa Diop ne hé faa bëgg ngeen def ndànk affaire bi affaire bi jeexagut de rawatina Karim Wade moom ndax moom fa am ñaari nationalité Sénégal ak France te loolu yoon fa koy xaayee kooku mënta nekk candidat te mënta delloo tamit nationalité am jom du organiser élection yi ndax fa far te ko far du xàtte leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ousmane Sonko ay kilifa yu bëri ci àdduna bi ak biir senegal ay universitaire fa ñuy sàkku ci njiitëram Macky Sall mu bàyyi ko mu génn kaso ah, yaaw fa ngay xool téeméer ak ñeen fukk ak ñaar ci ay borom xam-xam yu mag ay professeur université ay député ay journaliste fa ñëw signé ci kayit bind bataaxal sàkku ci njiitëram Macky Sall mu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso junne ci ay nit ñu jàpp tëj kaso ndax politique ñu bàyyi leen ñu génn ñoom it turbine yéen na professeur Serigne Diop borom xam-xam bu mag ba nga xam ne fafee nekkoon jëwriñ ju dénk wàlluk yoon moo leen jiite info yéen a na ko faala ci yokkal Filwin Sarr moom it fa bind bataaxal sàkk ñu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso ak mboolem ñu ñu jàpp fa ñaawlu doxalinu nguur gi ci ñàkk respecté ak yelleefu doomu aadama ñu ne déetewaay professeur Serigne Moustapha lañ ci yokkal xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké tey jii ci talaata ji fay dalal farandooru Ousmane Sonko yi waa yeewi askan wi te sikk nekkul ci ne waa yeewi askan wi fa ñu dem ngir sàkku ci xalifa bi mu dugal loxom ci yëf yi wax ak njiitëram Macky Sall ngir mu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso ak ñañ tëj ci wàllu politique yéene bi na laaj bi nag mooy ndax xalifa bi dana ci dugal loxom am déet li ci kanam rawul ay gët maître Ciré Clédor Ly ni ku naan ak lu mu ci mën ci doon ku war a wax xamal na mu toll ni wax jot na balaa làmbayee ñaaw Ousmane Sonko fi mu toll ni bakkanam a nga ca xottu gerte ba ji may wax ak yéen fa continuer grève de la faim ba bàyyiwut de te gàllankoor yam def ca wér gu yaramam fi mu toll nii man fa maa jaaxal man ko waxee ci indépendant yéen a kaay ba tax libération ne Ousmane Sonko Hannibal Djim Cheikh Bara Ndiaye ñoom ñëpp fi mu toll nii ña ngay wéyal seen grève de la faim ba pare fa ñoo bañ ne kenn du leen faj te loolu bu yàggee du baax ba tax maître Ciré Clédor Ly seen avocat ne jot na ngir ñu sowe ay bakkan ca Dakar Presse mu ne àttekat yi war nañoo bàyyi xel yëf yi doy na war fi mu nii de si di quotidien a taskatu xibaar ah, xool fa ñoo ñu bàyyi Sonko ak la ñu jàpp ci wàllu politique nga xam ne toll nañ fi mu toll nii ci junne ak juróom benn kenn du ko tas te Sonko mooy seen candidat 2024 fay bokk Vox Populi dëggal <laughs> lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne lu yées ñetti ay bés moo des ci màggal ak Touba ku tedd ki waaye yàlla ji taw ndox ma tax na Touba ma nga fees del antenne yéene kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom la Soleil yéene kaay mooy gaal ga bàyyikoon Fass Boy seen doom ya nekkoon fa te suux ña doon dem Barça fanweer ak juróom-ñaar ya nga xam ne ca mucc nguurug Sénégal delloo si na leen seen dëkk le quotidien yéen kaay ne waaye sa yaram fay daw faas booy jooyoo ba fa métti ba jéggi dayo ñaar ña nga xam ne sax fañ caa faatu woon te ñu gisoon seen niiw a mujj suulandoor foofa ci benn saal alerte yéen a kaay na sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides defati na lu baax ndax fa jël juróomi million dimbalee ko njaboota ak ña nga xam ne ñoo faatu ca faas booy enquête yéen a kaay moom fa xëy di enquête ci suñ bant yi nga xam ne chinois yi fañ koy jël ci anam gu jaarul yoon la ñuy wax bois rose nga xam ne fa cher buñ ci waxul nag suñ foore bi fay jeex li jeexagul mooy mbiru Uber Edouard Mendy ak ñam xàndal ñaar fukki doomu aadama ak ñeent teg nañ leen ca loxo ni ki démb libération moo ñu ko xamal les ko yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne maam faama kundul defeere nañ ko de moom ñam xàndal lañ koy toppee nag mooy wax lu du dëgg ne fa hëmbut a hëmbut fañ maa sàcc te sàccuñ ma xam nga ne loolu fa garaaw sur ay yéen a kaay na ko faalay wax lu ko gën a garaaw téeméeri junne yoon ah, yaaw fa ngay xool fa xam benn waay fa xaji woon màkk bu yàggu dara léegi nag waa ji jabaram fa bett ci kaw xale bu jigéen aay léegi au lieu mu laal glace maanaam seddal ñaan soxnaam sutural ko defu ko de fa jàpp soxna sa di ko mbuqi fa koo dóor ba mu tàll ñeret nekk ci diggante dund ak dee ba ñu yóbbu hôpital ay mbokkam kalaame jëkkër ji ñu yóbbu ko ca tribunal ba ëtt attekaay ba ngir àtte ko hmm, waa ma ne fii de la bët xem Sénégal fa ngay dégg lu nekk waaye faa lay ñaan rek de booy dem ci attekaay ba tribunal ba fexeel ba sa kaala màkk ga moom bu ko yóbbuwaale fa ngaa waroon a sàkk sa soxna mu sutural la ngeen géré ko seen biir moytu mu toll yow yaa weer bopp di